Euh, article 37 de la Constitution au constitution Sénégal. Je ndeyu charte réew le président de la république nouvellement élu fait une déclaration de patrimoine Je ci conseil constitutionnel qui rendre public kon déclaration de patrimoine elle est destinée au public mhm. parce que le conseil constitutionnel l'obligation obligation rendre au public mhm. bokut ak déclaration de patrimoine boy def off nak bo xamantene ne kenn duko ko gis tank amo problème hmm. bo amé problème sax kenn duko ko gis parce que une déclaration de patrimoine confidentielle hmm. li solo def déclaration de patrimoine laata ñu lay fal euh, dama trouvé que c'est malsain que tay nga am ñu fal la parce que wóolu nañu la japp nañu bu sa loxo set la nga tok ba jamono jot ñu fal la nit ñi mënatul mënatul la dara nga dem ne 20 milliards la am